boobu nga xamante ni bii le 10 la woon la commencé woon le fii ci Fass Boye point de départ bi Fass booy la woon waaye doom yëpp nekkuñu di doomu Fass Boye dañu am ay doom yu bari yu nga xam ni dañu fi ñëw comme ni ñu xamee clandestin ñan ak ñan la waa Fass Boye ci lañu waa Jogo Sulmer ci lañu waa Mboora ci lañu waa Daaru Fall ci lañu waa Calla Njilin ci lañu waa Mbuur ci lañu waa Kayaar ci lañu ñu waa Jiwaalo waa Dakar ba waa Dakar ñu ngi ci gaal gi kon gaal gi bare na doom yu waa xamante ni nekk na ci waa Casamance yi Kolda Wélingara ñu ngi ci gaal gi kon fa mu nekk gaal gu nga xam ni gaal gu triste la bi mu demee ba am huit jours xamuñu fu ñu nekk la fi TFM ñëw ñu waxtaan ak moom pour jaaxle bu doomi Fass Boy yi jaaxle ndax comme gaal gi Fass Boy la déparé woon kon Fass Boy la ñoo adressé gaal gi waaye njaboot yi ci nekk ñëpp bokkuñu dëkk Fass Boy dara benn gaal bu nga xam ne gaal bu jógee Sénégal la bu nekk ci terawtawalu Espagne gisuñu bu am nañu njaboot yu nga xam ni ñu ngi Maroc bi ñu nekkee Maroc ñu woo leen wax leen que ñooñu itam ñu dem foofu bi ñu demee ñooñu itam ñu tëmbal seen marine gisuñu dara ñu am ak jaaxle lool bi ñu ko defee ñu jël fii ay njaboot ñetti seet place yebal ñu dem Nouakchott dem Nouadhibou pour ñu war gisee ak ambassade bu foofu ambassade bu Sénégal ba nekk foofu pour ñu war gisee moom ñu waxtaanal nu ak waa état Mauritanie pour ñu jël seen euh, marine bi tëmbal nu seetal nu ci géej boobu e fa tabarakallahu jotuñu tëmb ndax kayit ya nga xamante ni bii ñoom lañ doon lijjanti kayit ya jotul lijjanti ñu wàññeekuwaat dellusiwaat Sénégal waxaat ko ministère bi waxaat ko ñi nga xam ne ñuy ñoo sës ci état bi yëpp ñi nga xam ne ñoo yore waa DP ñi nga xam ne ñoo yore wàllu marine nationale Sénégal ñu waxtaan cee ñëw waaye it jotuñu tëmb jotuñu tëmb jotuñu tëmb it fa tabaarakallaahu mën naa am gàllankoor la ndax nit ki état du benn nit état yi nit la bala ñoo bloqué bay di nga xam ñu ngi tëmb fa tabaarakalaaw yàlla dogal na gaal gi teer na fan la gaal gi teer Cap nan la gaal gi teere benn bateau espagnol moo for gaal bateau espagnol moo for gaal gi delloo siwaat ka Cap bi mu ñëwee fekk na ji nit ñu bare gaañu ndax ñi nekkoon ci gaal gi bi ñu leen laajee ñoom ci li ñu joxe ci gaal gi nee ñu cent onze moo nekkoon ci gaal gi xale yi nga xam ne ñu nga sapeur ni bi ñu leen woowee dañu ni cent onze ñoo nekkoon ci gaal gi ñoom ñi nekkoon ci gaal gi li ñu wax mooy liy mais ñi nga xam ni xamuñu fu gaal tëmbe xamuñu fu gaal teere xamuñu la mën nañu wax cent we quarante cent nangam waaye ñi nekk ci gaal gi nee ñu cent onze moo tëmboon ci gaal gi kon cent onze yooyu ñun moom la noo jàpp bay ba leen di gis bu ko dindi kon cent onze yooyu fa tabaarakallaahu bi ñu leen vérifié ñu ni ñan ñoo ci des ñu ni trente huit trente ñoo ci des am ñu nga am ni ñi fii la ñu dëkk ci Fass Boye nekk Île de Cap-Vert di fa liggéey ba ñu demee bi ñu leen woowee wax leen ka bi ñu vérifié ñoom ñu ni li ñu gis mooy vingt deux lañu gis état bi moom nee na trente huit ak tey six gaañuwaat na ci hôpital démb trois gaañu na tey ci fajar trois gaañu na moo six kon xanaa li waxoon yëpp wàññeeku fa tabaarakallaahu waaye lépp ñoo ngi delloo delloowaat yàlla njukkal di ko sant yàlla ndax doom yooyu mënoon nañu dund dundin bu nga xamante ni bii mën nañu ne nekk eh, eh, di def leneen lu nga xam ne lu neexul yàlla la wala lu neexul yonente bi wala lu nga xam ni du neex seeni waajur waaye bu leen yàlla jóbboo ci yóbbin bu nga xam ni yóbbin bu rafet la lan lañ doon def dañ doon daani seen doole dañ doon wut lu ñu dundale seen ndey ak seen baay sàcciwul naruñu defuñu leneen lu nga xam ni lii lu neexul yàlla la yàlla moom na leen ci géej gi yëg nañu ko nu itam nu ngi cee taxaw niñ ci war taxawee pour di ñaan état ndax état mooy suñu ndey état mooy suñu baay état mënuñu dem bàyyi état mënul dem bàyyi nu nu ñaan état état boobu jàppale nu bay suñu doom yi nga xam ni ñu ngi nekk Île de Cap-Vert ña faatu ak ñuy dund mu ñaanal nu yàlla indil nu ko ñi faatu ñu suul leen dund ñu delloo